ñëw bi ma ñëw fii sama xol sedd na ndax fekk naa fekk naa fi jàmm fekk naa fi organisation bu am solo te maa ngi sant bu baax les forces de l'ordre taxaw nañu pour lépp aw yoon lépp am si jàmm maa ngi wax Sénégal yëpp génn leen voté ajjuma ba tey si xutba yi dégg ngeen imaam yi ni leen voté dafa bokk ci warugaru jullit bi ndax dangay tànn sa njiit te tànn boobu ngay tànn sa njiit mën na jur jural réew mi ay xéewal waaye mën na jural réew mi ay fitna kon na ni ñëw tànn ta seetli li noo tànn bu baax kooku duma nit ñi seen warugar la yàlla moo leen ko jox yàlla moo moo ko demee noonu waaye nag bu ñu fàtte mukk ni ñun ay carte rek la noo am waaye ki nga xam ni mooy fol mooy sunu borom kon nag li ma bëgg mooy fii su dul tey si guddi wala ëllëg si ba tendance yu wóor dana am bu kenn woote fitna si réew mi nanu nangu résultat yi xam ni vote bi li ma gis fii gis ko feneen lépp aw na yoon kon gàcc galaama senegal ñëpp a ngi tiitoon Sénégal waaye xam naa ni senegalu maam Cheikh Ahmad Bamba Sénégalu maam El Hadj Malick ak mag ñu baax ñëpp Sénégal googu mën na am ay yëngatu-yëngatu waaye jàmm rekk lay mujje jàmm jooj moo feeñ maa ngi jaale nag ñi nga xam ni sunu boom moom na leen si manifestation yi di jaale seeni mbokk di jaale ñëpp te di wax ni nag senegal ku ko bëgg da nga koy bëgg si jàmm nee naa senegal li mu am te mu ëpp doole lépp li nga xam ni mooy wurusu Sénégal dëgg-dëgg du wurus wi nekk si suuf du pétrole bi du gaz bi lan la mooy jàmm ji fi am jàmm jee tax senegal amul woon pétrole amul woon gaz nit ñëpp investisseurs yëpp ñëw di fi dugal seen milliards. góor hmm. góorgóorlu ba loolu wéy. kon nag maa ngi ñaan képp koo xam ne yow la yàlla ni yow la ñu nangul la waaye na mat kilifa mat kilifa kilifa la sëriñ Cheikh Sidi Makhtar waxoon nee na ma kilifa day jéggale day jëllale te day muñ.